kaay pardon kaay kaay kaay dama lay laaj kaay. suñu ndekk bi de kàpp géré wu si xaaral moom li mu rëñ dafa bëri. kàpp géré wu si rek kaay ma laaj rek kaay. jël na pain. yow yow doo noppi naa ko réglé noppil. te jëlul benn mënoo jëlul ñaari moom dafa ñëw naa ko réglé yow kaay kaay kaay. kaay kaay lay laaj. dama lay laaj bi ñëwal. feeñoo feeñoo daa am lu ma bëgg a réglé problème mu dama lay laaj benn affaire rek yéegal yéegal fii parce que mënuma sëgg yow mburu mi ñu defar pour ñi feeñ ci émission bi ñan nga ko yóbbu nii. booy ñi ci biti. ñoom luy seen yoon ci ndékki waa yeewu leen. lu tax nga jël mburu mu bëri mi yóbbante nga dugg fi fii jël mburu mu bëri mi te pour ñun la. gars ñoo ma ko jox. indi. suñu buur waa suñu buur. bu ko defati yaa ah, indi. déedéet dama eh, indi. bu gàtt gerte gi. dafa bari sa xalaat dafa ëpp. bëri na de. numéro bi ñu war a ndekki ñu jël di yóbbu rek. <laughs> waaw xoolal ama de waa rédaction yi coos te koo ci nga defal ba rubrique mu bañ. mu bañ wax nga dëgg te ñun rek la ñu jéppi. <laughs> te suñu mbuur lay jël mu dal dafa bëri meew yi. une <laughs> mu jëloon ci mbuur dafa bëri. maa ngi xaar ba kenn laalaat fi mu ndekki rek voilà. merci démb Abdou Kouré ci mu ne ko kaay Chérif na démb. bàyyi leen bi ñu ñëwoon fi di laal suñu. Chérif day daw abusé waay yow <laughs> oh. bu mu ñëwaat fii rek. ah man noo wàññi ci biti ñoo ma yónnee. <laughs> man yóbbante rek laa doon dox. huit kaas la xaar ba nga laalaat suñu mbir yoon huit kaas. ba pare jël suñu kopp yi. huit kaas ii ak suukar bu bëri bii yëpp. on garde tout voilà fan la ñu toll. ñu woon ñu woon tey mooy anniversaire de